asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak euh, diine ñu bokk ak valeur yi ñu bokk bi ñu noppee ci suñu waxtaan wi weesu dafa am ku ñu laaj benn laaj ne ñu <clears throat> lu tax ngay wax ay njiit yu bon mën naa am dafa bëggoon ñu joxoñal ko baaraam kenn waaye noonu nag yaakaar naa ne du aw doxalin <clears throat> saa yu ñu waree tudd kenn daañ ko tudd waaye du nag kenn ñuy wax naan na tuddal kii walla tuddal kële Afrique nag moom moo tax may wax waaye rawatina réew mii nga xam ni moom moom la sama yoon nekk ku bëgg a xam nag kan mooy njiit lu bon da ngay topp suñu waxtaan ba ci mujjantal gi danga xam li nuy bëgg a wax lan la am réew nan lay doxe am réew mës naa ko fi wax ci vidéo yu bare bare askan mooy daje ñu fal kenn ndax ñaar mënta jiite ñett mënta jiite kennay jiite ñu jox ko ay sañ-sañ yoo xam ni yii ñépp dañuy jëfe ndigalam te ndaxam moos ëppoo fa xam-xam gënoo fa juddu ëppoo fa fit gënoo fa rëyum xel gënoo bëgg loolu ñu la jox keneen sunu boroom dogal mu ñëw ci sa loxo ñu boole laak ñu taxawal askan wi ngir ñu defal la ay loi jëlal la ay dogal yu réew mi di doxe muy assemblée nationale su fekkee ne mat na la mu doon jox la itam nag armée muy doole jox la douane muy doole jox la police ak gendarmerie muy doole jox la alal ak mbooloo nga sañ tànn ku la neex teg ci sa wet jox la ay jagleel bi gën a tuuti ci jagleel yooyu mooy yoon wi nga bokk ak yépp ñépp saa yoo ko soxlaa ñu tëj ko ba nga jàll ba noppi looloo ci gën a tuuti nag kon réew a ngi noonu loolu nag ñu jël teg ko ci sa loxo dafa am lu ñuy xaar ci yow li ñuy xaar ci yow mooy loolu ñu la jàppandalal lépp ba nga am donkaasi gi nga fexe ba ñi nga xam ni ñoo la ko joxit ñoom nga taxaw ci seeni mbir kon pal warula doon nguur waaye responsabilité la war a doon yow miñ ko teg ci sa loxo muy pal gu ndaw muy pal gu mag yow danga war a tiit ci sa bopp ndax yenn bi ñu la yen waaye jox la ay jàppandal yooyu nga ne est-ce que man kon danaa fexe ba askan wii ma wóolu danaa taxawe li nga xam ni moom la ma war ci seenub taxawaay su ko defee yoon wi nga xam ne ci sa loxo la nekk nga leen di defal lu yoon ñoom pour eux pas contre eux loolu ñuy wax se faire justice pas se faire justice yoon woowu du doon jaasi joo xam ne ci sa loxo lay nekk ku la neex nga àttee ko ni la neex loolu mooy li jëkk cim réew yoon di dox su ko defee nit ñi duñu jaar ci ñall yi yoon wi jub xocc leer nooy nepp amuli dëkk ami làmp wax dëgg yàlla su fekkee ne noona la mel kenn du jóg di jaar ci yoon woo xam ne dëkk mën na la faa jam askan woowu nga xam ni ñoo fexe ba nga ñoŋ am jàmm nga fexe ba ñoom it ñu am jàmm sécurité bi nga am ñu lay garder guddeeg bëccëg ñoom xaaruñu ku leen garde guddeeg bëccëg ku dox seen diggante kuy jalgati seen xàq la ñu bëgg ñu jël yépp li nga xam ni moom lañu war loog yow jox la ko kon lan da nga leen di servir mais pas se servir seen ñaq wi nga xam ne moom lañu ñu dajale jox la ko nga dugalal leen ko ñoom fa ñu bëgg nga dugal ko soo demoon bay leb ci seen tur nga fexe ba loola nga leb nga dugalaat ko fa tax ñuy wax su leb mënta ñàkk nag laa wax noo ko ciy dugale li ñuy tàmbalee cim réew mooy système éducatif digne de ce ndax loolu lañuy ñuy tabaxe ëllëg ndaw ñi gune yi soog a juddu ba ba ñuy tollu ci war a mën a jëriñ seen réew loolu état moo ko war a yor ci loxoom à cent pour cent parce que dañ laa jox ay moyens bi fi tus tubaab yi di nekk ñun fekke nañ ko kaye dañ la ko daan jox jox lay livre lépp lépp dañ la ko daan yoral yow daal sa sa bay jur daanaka yére yi ngay sol di ñëw lañ lay bunt ba école de tij sax daañ la lay jox kaki simisu kaki defe naa noonu lañ koy tuddee kon loolu moo jiitu nga ñëw nag ci dundin wi nga xam ne moom lañuy ñuy dund nga leen di yéegee ndànk-ndànk ka daan dem ca déeg ga di ca jëfandiku ak nag na mu na muy ñàkk nga fexe ba mu amub teen bu jamono doxee ba yàgg ñu amub forage bu jamono doxee ba yàgg forage yooyu di dugg ci biir kër yi loolu mooy ndimbalu askan kër yi nga xam ni moom lañu war a dëkkee nga fexe ba ñu am kër yu dëkkin wu baax moyens yiñ la jox nga fexe ba fa ñu dëkk nga lotiseel leen ko donte dëkkub kaw waaye du ñoom ñooy rëddal seen bopp lépp yow la war li ci des ñooy ñàkk seenu ñàkk jox la bu fekkee ne dañ laa joxoon ay moyens bañu ñu yëkkatiwaat seen lëf jox la pour ñu am ay dëkkuwaay HLM ci la bokk nga fexe ba nag askan woowu li ñuy am di ko ñàkk di ko am muy muy seen muy seen wërsëg ñu mën caa dund dund gu sell kenn ku ci nekk soo liggéeyee ba weer dee la ngay am walla boo liggéeyee ba at ba mbay jeex wala càmm jeex wala leneen nga mën a wëlbatiku suturaal ci sa bopp ñu yëkkati alal jox laat nag ne la nga investir fexe ba ay bërëbu liggéeyukaay am industrie industrie boobu di produire loo xam ni dañ koy soxla fii ci réew mi ay yére ay dàll ak leneen ak yi leneen ba xamoon ngeen ko te yàqul woon ci liggéey wuude ba nag dara nag ndax bokkuñu lu ñuy liggéey tëj na Sotiba xamoon ngeen ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen duma ko lim dama kon waxtu wi du ci xaj loolu mooy industrialisation waaye nga favoriser nag doomi réew mi fii nag li ñu xam mooy favoriser keneen ku dul doomu réew mi loolu nag ñépp teg nañ ci seen bët ku fi ñëw di liggéey sax te dëkkoo ci réew mi am na tax yoo xam ni yi dañ la koy teggil te yow mii doomu réew mi boo jugee woon bitim réew indi fi cent milliards soo moytuwul booy génn da ngay ñox sab genn booy daw kon loolu moo war diggante nguur aku askan njiit lu baax noonu lay xalaate maa ngi limaale boo xam ne bii nag benn ëpp ko ci donte moom lañu mujj a muy réew am ay njëriñ yoo xam ni day wàcce ci asamaan si wala mu jóge ci jant bi wala mu jóge ci ngelaw li wala mu jóge ci suuf si loolu lépp nga fexe ba mu amalaat njëriñ askan wa nga xam ni ñoom ñooy yeewoo ca réew mooma Muammar Xaddafi fexe woon na moom ba réewam daanaka amul wenn benn doomum réewam mu soxla woon a génn di wuti fenn lenn Botswana nag ñoom ña ca loola ba léegi te mbell ya génn ca seen suuf moo tax soxlawuñu leneen luy jóge feneen nga fexe nag ba doomi réew ma ñépp tolloo ci ay xàq citoyen bi soog a juddu ak bi mag ci réew mi citoyen bu mu mën a doon nga xam ni cër bañ la jox dañu la ko jox rek ndax ay at ci war ma ndax xam-xam boo am ci war ma ngir taxawaay boo am ci réew mi ci war ma waaye gënuloo citoyen bi soog a juddu tey ëppoo koy àq yow mii waaye réew moo xam ni nat dinañ fi ay hectares yu jéggi dayoo jox ko ay nit ñu jaay damm ci seen poos boobu misaal dong laa ciy joxe ak yeneen yu ma la mënta wax kon moom réew maandu amu fa te njiiti réew ya ñooy def loolu sanction positive et négative mooy kenn ku ci nekk la muy def nga fekk ko ca ku tooñ nga damm loxoom ba mu xam ni damm nañu loxoom bu ëllëgee du ko damm keneen ku gis ci moom du dab du du tooñ bu ëllëgee ku gis ci moom doo du tooñ noonu lañuy def waaye boo fareeb tooñkat kii liggéey nga ba defaloo ko sanction positive du jot ci àqam wala ba tey bala cee jot daw ba fattu ñu koy wër-wërloo di ko mbiccoo mbàlloo moomu réew ku ne xam na ne ka ko jiiteeg ña ko àndal jubuñu favoritisme laxisme népotisme clanisme copinage culte de la mégo médiocrité lii lépp ci wàllu parparloo la jëm lii lépp ci wàllu parparloo la jëm lii lépp ci parparloo jël ay nit yoo xam ni tekkiwuñu dara jël lépp teg ci seen loxo ñu xëy suba nga seen ay nit ñoo xam ne ñi zero lañu ñu jugee zéro yéeg ba ca njambaxtal la ña waroon a nekk ca njambaxtal la nga teg leen fële di leen këll-këllee yooyu yépp bu dajee cim réew lan lay jur li ngeen di seen chomage bu jéggi dayoo akuk cay caay banditisme ak yeneen xeeti ñaawteef ba ci cagatu gi prostitition loolu lépp jafe-jafe yu am réew di jànkonteel moo koy indi ba ci émigration bii ngeen di dégg coow li ndax am réew li tubaab di wax naan l'oisiveté et la mère des vices mooy le chômage l'oisiveté mooy koo xam ni kii da nga ne yàcc amoo loo def man dey ànduma ci deminu gaal gi ndax bari na risque lool lool ba jéggi dayoo li ci xew fan yi ku am xol da nga tëdd ba guddi sax nga binni ndax ñaaw teefug façon dee bi waaye li may wax rek nañ ci dellu siwaat nit du bàyyi ndeyam ak baayam bàyyi am réewam bàyyi xaritam bàyyi ay jabaram walla jëkkëram bàyyi ay doomam bàyyi képp ku taq ci moom jug dëgmal foo xam ni xamu fa dara amu fa benn yaakaar bu mu tegagum loxoom benn benn tegagul ci loxoom dara lu dul fétal rek topp njëm du ko def mukk ci caaxaan bu amoon la ko gënal fii du def loola bu amoon fukkeelu la ko gënal rek kon loolu lañu war a laaj question yu xóot yi mooy lu waral lii njiit lu baax itam nag day doon njiit lu am fulla ak fayda loolu la wax état fort sans concession ni partage nguur goo xam ni gi nguur gi ci loxoom lay nekk mu xam ni moom lañu ñu fal faluñu keneen doo déglu kenn ku dul conseiller yi nga xam ni yaa leen tànnal sa bopp ndax nag loolu looloy nguur waaye nguur goo xam ne gii bala ngaa def am ku la ne defal bala ngaa bàyyi am ku la ne bàyyil te kooko doonul ca nguur ga dara loolu du nguur yow dañ laa jàpp otage benn groupe la téye wala benn nit nite la téye wala benn mbooloo la téye wala benn féete la téye kon kooku du nguur koo xam ni kii amoo sañ-sañu def dara lu dul da ngay dem yàppi-yàppi nii wax la kii déedéet loolu du nguur loolu leneen la ku ko tudde nguur xamoo luy nguur léegi nag ma laaj leen kon ñi fi jaar ñépp ba bësu tey ji wax leen ma kenn ku ci jëfe lii ñu leen wax mu weesu ku xool suñu réew mi méngale ko ak réew yi nga xam ni yii kooku nag waxoon naa ko démb waxati ko waxati ko waxati ko ku génnul dem ci benn dëkk bu réew mu jege rek mënoo ko xam waxuma laak nag boo demul ca réew yu sori ya loolu ñuy tuddee développement mooy ko mooy dem ca kanam chinois yi boo xoolee ci tiktok bii rek da ngay gis seen yitte ay entreprise yu ndaw tamaate ja ña ngi koy defar ñu nga jël légumes ya yenn xeeti légumes yu bare di ko transformer seen bopp nga xam ni daanaka benn famille ko moom benn famille loolu mënoon nañ ko fii matériel boobu ñu koy defee jëndi ko matul ay milliards te am na nit ñu fi tabax ay milliards yoo xam ni kenn xamul fu mu jógee ñu joxoon ko ay famille ñu transformer mango jii di yàqu transformé soble bii di yàqu transformé yeneeni denrée yoo xam ni mi ngi yàqu créé woon ci métier te loolu lu lu yenu maanaa la koy gis ñun kay li ñu xam mooy ay ca fecc génnee say taat ñori ko dégg nga toppandookee xool leen tiktok bi sa xol bi day bucceeku di lang doo xam ndax ñaar yi lu ci jaaxal yow question bi mooy ndax ndool gi ak povreté bi moo gë moo indi nit ñi di féréw li seenum xel ci ay caaxaan boo defee lii am xaalis wii werd ku ko werd am xaalis ku ko werd jigéen ji nopp la ku ko werd tukki danga tukki danga dem kii ku ko werd sa liggéey bi danga gaaw a am liggéey léegi xool leen niveau bu suufee bi comme ay rabu àll te ñooñu koy wax fi ñu toll ni ñooy millionnaires yi ci réew mi le mensonge la religion la distraction sont des opiums dans ce pays moo naam ba màndi rek ngir nga fàtte ko diine loolu la fi nekk ci réew mi fenn loolu la nekk ci réew mi tëgg ak fecc ak i caaxaan loolu la nekk ci réew mi ay jigéen amu leen jenn yitte ñooñu ku xëyoon suba wutal leen métier wax dëgg yàlla lëmbal gi ñu nekk ci ci ci ci internet bi jeex na bu yàgg tëgg geeg fecc gi jeex na bu yàgg waaye amoo métier amoom xëy et l'un dans l'autre doo xam nag ndax ñàkk métier ko waral wala toroxal sa bopp ba àgg ci niveau boobu fii daal nekkal parasite weteñ di muucu deretu askan wi bul xëy bul gont nekk milliardaire nekkal fenkat nekkal trian yaafus bu amul xëy gont ay nit ñoo xam ne ñi bërki démb mi ngi nii ci suñu kanam dañ daan tàllal seen loxo ñu leen di may diggante bi kenn xamul liggéey buñ fi am kenn xamul tool buñ fi am kenn xamul métier muy jur xaalis muñ fi am ay taaxi kaw la ñuy tabax di rem tëdd ci salon yoo xam ni boo àggoon buñ la nee toogal doo toog buñ la neewul toogal doo toog réew moomu bu fekkee ne dañ fa toll te lenn indiw ko lu dul njiit yu bon façon yorin wu bon di suqali ñu wërta suqaliku ña war a suqaliku nga baleen fa mooy indi image yu ñaaw yooyu askan wi di torox di am na maa ngi sant Cheikh bu ture moo ma ko fàttali ak Sel Kabo benn journal euh, euh, bindkat bu jigéen la moo laaj ñaari téere la bind et si l'Afrique refusait le développement comment l'Afrique en est arrivée là ñaari livre la ku ko bëgg da koy commande lu yomb la Axel Kabou Axel AX E 2 L E turu jigéen la ak sel kabu ñaari téere l'Afrique si et si l'Afrique refuse le développement mu ne ndax waaw est-ce que nag euh, Afrique moom nekkul réew walla boog continent boo xam ni bëggut a développé moom mu laajaat beneen laaj daal ne nana nan lañu def ba Afrique ak si fii mu àgg ci ndool ak deltu ginnaaw ñaari téere yooyu ku ko yër da ci fekk lii nuy wax lépp lépp lépp lépp ci deltu ginnaaw goo xam ni Sénégal Afrique ak réew yi bëgg a mel na ñoom ba tey ñu ngi tappax cappax yi ci biir deltu ginnaaw ko defee bokk yi ñu yamale kàddu yi fii ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.